Uh, Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay uh, Adja Ndeye Comba Moreau. voilà Assane Ba nga nekk uh, membre du comité directeur bu parti démocratique euh, sénégalais euh, fi ñu toll nii nag euh, parti bi nag lay préparer élection présidentielle bu deux mille vingt quatre. waa jërëjëf suñu parti mu ngi préparé bu baax ndax li ñu jëkk def mooy fexe ba yeesal suñu kuréelu parti. yeesal secteurs yi yeesal section de base yi yeesal fédération yi waaye yeesal itam li ñu tuddee organisme interne maanaam kuréelu ndaw ñi kuréelu jigéen ñi kuréelu anciens yi kuréelu cadres yi cellule d'entreprise enseignants yi euh, ak ñu demee noonu daanaka ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yëpp pare nañ ko nous sommes pratiquement à quatre-vingt-dix pour cent de renouvelés loolu lu am am solo la liñ si jublu mooy dañu bëgg bu Karim Wade ñëwee ak jàmm te yàggatul mu am ay interlocuteurs bu ñu nee tel dëkk rek ñu xam exactement ñan fay responsable ñan lay ñan lay jokkool ak ñan lay waxtaanal ak ñan lay defee stratégie non seulement ci biir réew mi mais même ci bitim réew maanaam li ñu tuddee les Sénégal d'extérieur ñenn ñi ko woowee diaspora foofu yëpp def nañ un maillage politique boo xamante ni Euh, def laajoon suñu parti def dañ toog lu yàgg yeesu luñ kuréel yooyu yooyu lañ jëkk def ci préparation bi ñaareel bi euh, dañuy def parrainage bi comme ni ko yoon santaane parce que parti politique wala coalition booy dem élection code électoral dafa ni foog nga def parrainage surtout que bu dee élection présidentielle xam ngeen en deux mille dix def nañu parrainage bu am solo ñu am lu ëpp li ñu xaymoon ak li ñu waroon a déposer conseil constitutionnel kenn nattablewu ko parce que PDS mooy pat bi gën a màgg ci Sénégal alors donc ñun amuñu difficulté am ñu benn jafe-jafe di am ay parrainage bu baax a baax fii mooy wax yow parrainé nañu fépp diaspora bi parrainé na quatorze régions yi parrainé nañu quarante six départements yi pare nañu donc pratiquement li nga xamante ni yoon santaane na ko ci parrainage bi am nañ ko ba mu de ñu sënkam këpp donc loolu am ñu si benn jafe-jafe donc euh, PDS ku ko xam xam ne warul am problème mu parrainage loolu de ñaareelu mbir mi la ñetteeli ponk bi mooy ñoo ngi waajal ñibbi si ak ñëw suñu candidat Karim Meïssa ñu war ci war ko duppale nag ak benn congrès d'investiture congrès d'investiture maanaam mooy bi nga xamante moom la ñu tabbee officiellement le candidat du parti démocratique sénégalais loolu yëpp nag liggéey la boo xamante ni ci def dugg ci cadre préparatifu élection présidentielle bu deux mille vingt quatre loolu jàpp naan ay ponk yu am am solo la yoo xamante ni militants yi ak responsables yi ak citoyens yëpp sax war nañ xam ni liggéey boobu la Parti démocratique yi def te incha allahu rabbi am nañ yaqin ni sénégalais yëpp Karim la ñuy xaar parce que koo koo foo toog tey ci grand place yi foo toog ci café yi foo dem ci hôtel yi foo dem ci liggéeykaay yi ana Karim ana Karim ngay dégg. Karim est sur la lèvre de tous les citoyens sénégalais et de façon quotidienne loolu dafay wane ne rek firnde la boo xamante ni incha allah bi sénégalais moom la ñu xaar te moom la ñu woteel am nañ yaakaar ci ni bu ñu yàlla mayee ñu fekke taal ko ba le dimanche vingt cinq février deux mille vingt quatre Karim Wade dina dégg ñu au niveau national international. Mhm. mais sénégalais yooyu ngay wax nag ñooy laajte Karim ñenn ñi sax nee nañ est-ce que Karim am na ambition pour jiite Sénégal est-ce que am na ambition présidentielle à deux mois de l'élection gisuñ ko aussi mu ne tekki communiqué wul ak kenn. waa xam na Karim Wade moom kenn ku ne lu la neex nga wax ci moom waaye li ñu teg Karim Wade amul kenn koo xam ne teg nañ ko ci Sénégal yooyu di ko laajte Karim Wade lañ fi tëj tëj boo xam ne amul yoon ñu jël Karim juge ko ci loo xam amul yoon mu am mu am lu ëpp fukki. Euh, euh, arrêt ak juróom yoo xamante ni tribunaux yi gën a ci àddina bi may ko dëkk waaye yemuñu foofu Macky Sall ak yoonam dal di ko jël déporté ko yóbbu ko Qatar alors sonnal ko ñu ne ko doo seet sa wayjur doo dem sa doo dem seeti sa siège doo dem seeti sa sëriñ doo da génn Sénégal coono jooju amul benn sénégalais bu ñu ko teg kon sénégalais yooyu dañu dañu amul xelaat rek waaye ku am xelaat xam ni li ñu teg Karim buñ leen ko tegoon ñoom duñ duñu duñu tal wax loolu waaye loolu amul solo nangul nañ leen seen xalaat ak seen question parce que on est en démocratie mais li leer mooy Karim tey la gën a bëgg Sénégal te baale na Karim nee na je pardonne à tout le monde donc li ko soxla tey du lenn lu defaraat Sénégal économie bi dox xale am liggéey ñu am xëy ñàngam yi baax santé bi ñoo war a faju jër ñi man leen a jàppale ci projet yi Sénégal dox jëm kanam jafe-jafe yi nga xamante ni. ay la yoon am na ci réew mi ci fànn yëpp nag moom la ñu bëgg relever la défi daal di defar Sénégal donc Sénégal yooyu nañu xaar Karima ngi ñëw ci kattan suñu borom ñu ànd ak moom ñu régler situation réew mi. Hmm, comme que ñëwagul ñenn ñi ñu ngi xalaat est-ce que jotul PDS am plan B. waaye dañu dañu dañu dañu fontu rek xam nga ni ki nga xamante ni nekk na candidat partem tabako candidat ñi ñi ñi ma moom moom expliqué léegi si nga xamante ni foofu la ñu jaar pour di préparer euh, suñu parti buñ nee ñëw kay ko dañ dañ dañu caaxaan rek ku dul ñëw kay du préparer euh, euh, élection présidentielle non mu ngi ñëw kër ma ngi ñëw n'a pas de problème ma ngi am mbégte lool sax di la wax ni incha allah ci calendrier Karim la dépendre ak ci calendrier wu parti bu ñu paree ba déggoo ci suñu calendrier ak ci ban ban ban waxtu lay ñëw Sénégal yëpp dañ leen ko informer te yéen ñii di presse bi vous serez les partenaires privilégiés de notre parti et de notre candidat pour que ngeen diffuser largement n'est-ce pas euh, euh, ñi ñi seen kër yi parce que dañu bëgg mu nekk euh, un accueil triomphal bu gën a sax bi nga xam te moom la way juróom wu góor amoon en moom lay Sénégalais yëpp di xaar nag ma xamal la loolu et ça c'est extrêmement important. ñenn ñi aussi di laam-laame éligibilité Karim par rapport ak euh, nationalité française am ñooy dañu feebar dañ leen di renvoyer rek à la décision du conseil constitutionnel en deux mille dix neuf pratiquement du treize juillet deux mille dix neuf bi nga xamante ni euh, le conseil constitutionnel def rendre un arrêt leeral disposition yëpp ni Karim lépp mat na lépp mat na lenn rek moo ko moo ko bloqué mooy carte électeur bi nga xamante ni Aly Ngouille Ndiaye jaanoo jooju moo nekk ministre de l'intérieur ak Macky Sall ñu complot complot bon bañ ko jox bañ ko jox euh, carte électeur am te Sidiki Kaba defoon conférence de presse mu ne Karim Wade a à ses droits civiques et politiques il peut être éligible il peut être candidat loolu yëpp leer na bi yéen seen rajo bi déglu naa reportage boobu Sénégal yi fàttewuñu loolu kon que ñooy ñooy ay tapale la rek mais Karim amul benn gàllankoor ci man nekk candidat amul benn gàllankoor ci éligibilité ou ak yu demee noonu ñun nit dañuy waxtaan dañuy kaf rek. ñooñu c'est les adversaires du PRS ñoo koy wax mais amul solo nangul nañ leen ko. ñeen ñi sax yenn saa yi ñu dem ba ne est-ce que Karim am na ambition jiite Sénégal Lamine ami euh, Assane no non ñooñ dañuy fond rek mais bu amul ambition jiite Sénégal coono ji muy daj ci Sénégal di ko dajal réew mi euh, fàttalikul bi nga xamante ni mbas mi ñëw na fi ñoom rek moo fi indi ay kit jokk ministre de l'intérieur mais des ministre la santé amul benn parti politique bu ko def amul pratiquement benn beneen beneen kuréel ci réew mi bu def yu demee noonu kon kooku Sénégal rek moo ko soxal réew mi rek moo ko soxal liggéeyal askan wi moo ko soxal non écoutez ambition mënu gën rëy bëgg defal si Sénégal bëgg jiite Sénégal ci ay am ay projet ak ay xalaat porteur euh, d'avenir pour notre notre cher Sénégal fexe ba xale yi ñu wutal leen xëy njàng mi baax nit ñi mën a faju bu ñu waree faju dund gi mën a wàññeeku solde yi yokk tuuti ndax askan wi lott nañu loof nañu lépp cher réew mi kon kay xam nga ni Karim lañu yaakaare mu mu faj aajo yooyu yëpp kon kay nañ ko ñaan yàlla si borom ñëw jàmm rek. Mm-hmm. Euh, beneen mm aussi mbir boros nga ko léegi di uh, li nga xamante ni moom mooy euh, émigration uh, irrégulière bi naka nga gisee phénomène bi nga xam ne fi ñu toll nii moo nekk au cœur de l'actualité euh, doomu Sénégal yu bari di si ñàkk seen bakkan ndaw yi dara mënatu leen a tëye. xam nga as loo gis rek dafa am conséquence maanaam loo rek am na lu waral loolu lay tubaab tuddee conséquence mais je pense que si ma ko xalaat mooy politique bu bu bu bu bu ñàkk solo boo xamante ni moom la gouvernement bi di exercer parce que fii fii la président Macky Sall waxoon ni am na euh, programme cinq cent mille emplois juróomi téeméeri junni pour xale yi am xëy man am na ci ñoom ñu bari ñoo xam bokk naa ak moom ci ay plateau de télévision ma laaj leen cinq cent mille emplois yi fu ñu ko dugal ma ne xanaa da ngeen di yegg euh, ci planète Mars pour ñu fekk fa employé mën ñu ma tontu ba tey jii tey la wàllu gën a ay ay ANPEJ ak ay affaire ay caaxaan amul benn njëriñ donc di am solo déception boobu mbetteel goo xale yi am moo tax tey seen xol jeex ñu rëccu xam nga ni duma la duma la duma la jàngal ne am na ay mouvement rëccu ay mouvement rëccu xew na ci réew mi ñu ne ab Abdoulaye Wade moom rëccu nañu li ñu la daan li ñu la doon euh, euh, gam gamle ak ak ak ak ak Macky Sall n'est-ce pas y même pas photo àll ñu mu ma rëcc yooyu nag moo jur tey coono yi problème yi nga xam te xale yi tey rëcc boobu jaf leen ba ñoom ñëpp seen xol dafa yàqu seen xel jaxasoo ba ñu ne daal xëy na bitim réew mooy solution bi moo tax ñu dugg ci gaal looco yi mara détail gis nga catastrophe yi ci am gis nga néew yi ci am mara détail gis nga euh, famille yi ci tumaranke loolu naqari nañu torop mais jàpp na ni daal incha allah rabbi lu ñu war a mën a corriger la lu ñu war a jooy mën a jooyanti la ndax Sénégal def laaj ñu joyante ko bu laajee sax dénkoom ñu def euh, euh, benn diagnostic te def ko laaj laaj également ñu def euh, disons jotaay bu mag boo xamante ni dañ koy pencoo ak les acteurs de la pêche ak les acteurs yi nga xamante mooy jeunesse bi ñu waxtaan nañoo ak la société civile avec la presse ñu waxtaan bu baax a baax a baax pour ñu mën a génn ay solution parce que immigration bi c'est pas la solution de l'emploi. Non, non, c'est pas la solution de l'emploi. C'est c'est plus que ça. donc loolu dafa laaj ñu cambar ko dafa laaj ñu waxtaane ko dafa laaj ñu pencoo ko loolu daal yaakaar naa ne ñun loolu mooy suñu xalaat ci lool euh, beneen aussi ñu laaj la si cherté de la vie bi nga xam ne actuellement euh, sénégalais ñu ngi koy jànkonteel inflation yokk si lépp aussi lan nga si mën a wax Assane Ba. waaw inflation bi nag metti na trop impôts yi bare na lool dund gi seer na trop trop trop mais foofu tam li nga xamante ni mooy secteur agriculture mooy napp gi ak càmm gi ak euh, euh, ak mbéy mi mooy mooy mooy mooy moom lañu ñu toppatawul ndax yéen yëpp ngeen ngi fàttaliku ni président Macky Sall fii la waxoon ne en 2017 dafa bëgg ñu béy ceeb boo xamante ni bi dootoon jégaane ji ceeb bitim réew fii may wax yow. lu ëpp huit cent mille tonnes ci ceeb moom la ñu jéggaani ak mu nekk bitim réew mu ñëw fii te ñu am àll boo xamante ni war nañu may bay ceeb bu bëri lool buñ ko béyee mu bëri lool njëg yi du seer te itam Sénégal yi lekk ceeb bi bu pare ñu def ko ci dugub bi def ko ci euh, pulox mi def ko ci suppome yi def ko ci kamaate def ko ci kaani def ko ci kànj yi def ko ci yooyu yëpp noonu la ñuy protéger n'est-ce pas le panier la ménager parce que bu ñuy bu ñuy dundee li ñuy lekk te mu mu ne gàñ ci réew mi da day day dal di yomb a ah, loolu moom la ñu war a moom lañu ñu war a def bu ko defee njëg yi ñu du du du métti ci nit ñi mais bu fekkente ni yow da ngay lijjanti am mille francs te mille francs bi daanaka boo jëndee kilo ceeb ci njaboot mun munoo ci am lenn wax dëgg yàlla dafay métti loolu nag daf laaj benn appreche donc nañu diversifier aujourd'hui li nga xamante moom la ñu béy te li ñu bay également mu bare bu bare du seer te bu seerulee dina am njeexital ci li nga xamante ni moom mooy xaalisu citoyen sénégalais yi ba pare ñu créé nag ay ay ay industrie parce que mbéy mi buñ ko béyee am ci ay jumtu am ci ay euh, meññeent dañ ko war a loolu ay usine la buñ ko mënee transformer xale liggéey fa jigéen ñi liggéey fa ñi am formation liggéey fa loolu la ñuy defaree réew mais bu fekkee ni loolu yëpp amul mais dafay day doy waar xam li ñu fi am ci ay fruits mango yi di fi nëb banaan yi di fi nëb euh, battance yi ak ñoom seen yooyu yëpp bu ñu amoon ay machine yoo xam ne dañ koy transformer mu petit agricole li ñu tuddee petit et moyenne industrie ak yooyu dafay daal baax trop mais loolu amagul Sénégal ñun wartuñ sax jéggaane ci Sénégal ay ay boisson ki yooyu tellement ko mang yeeg orange yeeg lépp ngi fi lu war a man defar la soppar ñu ko ba ñu am ko ci fii réew mi loolu mooy li nga xam ni moom la ñu war a def ci sama xalaat bu ko defee wax dëgg yàlla ñu yokk industrie bi xale yi léegi am xëy ñu lekk lu lu lu ñu neex fii kenn ku nekk nga am sa kër bu boo fa mënee def benn oranger wala benn limonier donc noonu lay chinois bi noonu la ñu développé réew c'est comme ça mais lépp boo ko bëggee jéegaani bitim réew mais day metti Sénégal nag li tax mu metti lépp lépp bitim réew koy jégaani ci looy jënd bitim réew pour consommer ko fii nag ala kulli aay foog mu cher lii rek mooy indi cherté bi te gouvernement bi malheureusement dañu laajte foofu ndax ñu beneen yoon wu uuteeg wii ma la wax tant que jëluñu yoon wii ma la wax nag loolu coono jooju du fi jógee. merci beaucoup euh, assan Ba en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. Ndeye Comba Moreau maa ngi lay di la sant. Assane Ba ñuy fàttali ni yaa ngi nekk euh, bokk ci comité directeur bu parti démocratique euh, sénégalais merci beaucoup. jërëjëf merci Ndeye Comba Moreau.